Touba li waral suñu jataay tey nag ak euh, presse bi mooy bëgg leen xamal kan mooy Ibra Kane yàlla dogal na lii kii nuy politikal tey di Macky Sall yàlla dogal na bi ñu ànd ak moom amagul parti amagul sax mouvement parce que booba mi ngi doon président assemblée 2009 ma jóge fii ci Touba 2009 dem këram ànd ak ay kilifa ma dem këram bi ma demeet ma xamal ko ne ko doon nga directeur ba doon président assemblée musuma xam sa bureau ndax man yàlla dimbali na ma duma koy tambang tambang ci bureau ngir sàkkulu ji lu mu am tey nag damaa dégg fi nga nekk ci assemblée bi ñu di la bunduxataal te lu ñu la wax luñ mën di wax yow nga wéer sa bopp ci ne man taalibab sëñ Mbàkke son Lo man nag ma wax ko ne ko taalibab sëriñ Mbàkke son Lo man Ibra Kane fa suma yéenee muy ne ci naaj may ne ci ker kon pare ñëw naa tey pare ci lépp loo nekk ma ànd ci ak yow mu ne ma mu ne dënn ba yàgg mu ne ma lii nga ma wax day néewaane ko ma ko wax ma ne ko doo gis ku la ko wax ndax booba Tuubaa moom nuyu ko sant sàll jafe na ndax boobu Abdoulaye Wade nga ci dëkk bi te bari na doole te gars yi booba lu doole ja doole jee leen ko gënal ñun ñu laxasaayu ànd ak moom depuis 2009 ba mille 2018 lan ko waxoon nag def nañ ko ndax ànd nag moom ci ngor ba fal ko te boo ko la mi ngi may dégg wala ko sës ci moom dégg ma yaakaar naa néew na lu jóge ci moom ñëw ci man musuma ko lakkalit ci ne ko def ma lii wala def ma laa waaye nag présidentiel day ba nu àndeek moom falu na te xamul ko fal keroog bi nga xamee ne nag euh, yàlla dogal na mu ja gañe réew mi bari na fi dëkk bi euh, ay ndaje yu mu daje di ko ñàkk yàlla xam waaye nag olof Njaay dafa wax ne ku ñëwut sab aaw du la mayum ñaareel tey gan gu ñëw ci kër gi nga yenni ko teral ko toppatoo dëkk ya day baax ndax euh, man da damay gëm ne bu nit ñi xoolee APR xool ci sama jëm ji yaakaaruma ne nit dana ñemeeti dem APR ndax barab nga dem fa def ay at Muso caa jariñu kon ku ne la ne ka ñu dem ci dana la xaadu fi nga nek fofu jëru dem ndax foy dem tuddo fu jariñu jëru dem lool mo waral tay bis bi ma wo presse bi ngir yegle ne li nak lancement la motax sama responsable yi bari bañ ko déggee dañ mané nañu da ngay bayyi man leen du ma bàyyi damaa ak waxi gor dana ko yeesal waxi gor ya ko waxon waye nak euh olof ndjay neena na eh, daara dong du jangu kay yi bari na kon damaa wax ak moom ci lii waaye nag bii lancement la rek bis bu nu dellu siwaatee nag danañ leen wax leneen lu gën a leer lii tey nag dañ koy xamal ne ko élection yi ñu jëm ñi ngi taxaw di la déglu ñi ngi taxaw di la déglu ci lii nga bëgg ñun suñ paaru bopp néewuñu ne kenn bu mu dem politiciens yi responsable yi Touba amu ci kenn affaire ndax kenn jiituwuma ci du ma ci jàmbat kenn sama sama naqar ndax ba may dem ci APR ñii fi nekk ku dul Moustapha Cissé Lo Lat Seck Sadaga booba nekk ko ci kon ñii duma leen sànni waxuma ak ñoom awuma ak ñoom affaire ki nga xam ne mooy ndey mbili gi di mag i Sall laay wax la suñ baaj bi sama loxo mooy euh, euh, damay pare ne du ma ko jox ma sàmba duma ko dem a deng kii rek ma dendal nii douze fois def na ko foo yi def na ko mi ngi may laajaat ay fooy yi am na koo xam ne trente fooy léegi bi muy dugg la may wax na ma jeexal jeexal na naa ko dolli maa ngi ci sept cent nangam personnes actuellement mais nag joxuma ko ma Samba joxuma ko ma Demba amoon naa joxoon nañu ma benn bloc boo xam ne cinq cent cinquante ci nekkoon séddale naa ko mi ngi ci nit ñi waaye dama ne nag bu ma ko kiiyee ba pare nag taxul ma man koo jox Macky Sall wala kenn ci affaire ku dul damay dem ba xam ni fii ma jëm léegi ñeme naa faa jëm ma soo koy joxee tàngal loo buñ ma tàngam loolu alhamdulilahi rabil alamina ndax euh, li ñuy wax nag cere ju neex ci la diw dàqee suñ ma tàngam loolu ma xam ne kon jëralu ma leen ko am na ñoo xam ne ñu ngi ne siiw ma wax ak ñoom te du ma wax ak ñoom ngir as laa waaye nag yàlla dimbale na ma nag bés boo déggee fii ma taxawaat ak yow ne la jóge naa fa wallahi lanc ba mooy fàttu danga ma déggat feneen fudd foofu li mu toll ni du ma wuyu mel na mbër lu dul maa ngi jàkkaarloog roi de fi nekk bande bis moo demee ba mu wóor ma ne roi ñu bëri su boobaa mbër yi bëgg ma bëri ñoom bëri nañ te boobaa mbëri ñoom Euh, dama ne la euh, fonction bu joxe fi ci Touba parce que Touba lim fi joxe kon luñ fi tëlee amut ay conseil économique la fi joxe un conseil député ak ay chargé de mission conseil spécial yooyu luñ ci télé amut ta ñim koy jox ba ñu dugg ci ñom ñëmu ñon nuyu ko sam sal ñom ñim fal ñi ñep laa la wax ku lat laat sekk sa dagg doo Moustapha selo la na ñeneen ñim fi fal ñep man laa la wax ba muy ànd ak moom booba kenn ku ci neme nuyu ko sam sal amut laa la wax loolu leer na

ñaaral ba ci topp itam ñëw di fëgg ay bureau di jaar ci ay DG yooyu duma ko def ñetteel ba ci toppitam nag mooy du ma nekk di xastante du ma saagante duma ma ndax dafa am fu ma toll te am fu ma nit ñi toll te loolu du ko yàq politique du ma ko jaral ma du ko yàq. 2012 ba mu faloo 2013 laa jëkk a dugal benn. demande audience ba fii may wax ak yow nii demande baa ngi nii sama poste bi ma mujj a dugal 2018 bi laa ko dugal yaakaar naa cinq demandes yoo xam ne dugal naa ko benn buñ ci buñ ci région amut nit ki nag boo bëggee mu ànd ak moom mu ànd ak yow da nga koy ni mu lay nangoo wuyoo noonu nga koy nangoo wuyoo comme moom du wootee nag ñi koy woo ne leen nangoo wuyoo xañ na ñi dox ci diggante bi ñoo ko du jàll te recommandation yi bari nañ mais ñun yàlla dogal na xañ na amuñu ko ñu recommandé ak moom mais ñun suñu recommandation dafa jiitu woon ba ñu recomm ba ñuy dem di di recommandel suñu bopp booba kenn ñi mu taxaw ci Macky naan ko dama lay jàppale tey bu ñu ko ne ku ko ci naan dama lay jàppale ba mu fàtte ñooñu jëm rek tey la mais ba ngay taxaw naan ma Ibra foo ma woo ma wuyu ñi di leen yàqawliku moo tax ñu ñu dem waaye nag nañ bàyyi xel ne 2019 ñoom programme la te ñun am nañ yéene yi nañ ko defaroon 2012 mu taxaw te coow jibut noonu lañ ko fas yéene fale 2019 waaye nag ci kaw liñ ko wax mu nangu ko